ni moo di ay preuve moom Bougane wax na ko ci chiffres yi nga xam ne euh, weddi ko tey jii bu ñu gisee lii kon lan moo war a mën a tax euh, moom Bougane Gueye Dany ñu libéré ko bu fekkee ne lii euh, premier ministre wax FMI mi ngi ñëwaat di ko dëggal et tout. ah FMI du justice nag du tribunal hmm. du justice du ah. donc justice moo mën a wax diw yaa def wala def loo même justice bu waxee yaa def loo même bu président waxee ne tëj. leer na cest dire que Cheikh Yérim Seck euh, foofu sa débat dafa am bu posé dañ ne. Euh, entre police maanaam entre cybercriminalité ak euh, parquet. kan moo ci wax wool diw. parce que bu dee da nga débat boobu lay posé mooy am na benn si ma nekkoon débat bu am solo ñuy wax ne. bu fekkente ni. waa police procureur santul santul waa cybercriminalité ngeen woo euh, Bougane Gueye mm-hmm. alors lu tax donc waa dik waa waa cybercriminalité di ko woo ba pare est-ce que dañ ko yëgal ba pare bu mu ko yëg bu dee dañ dañ leen yëgal ba pare ñu soog ko woo li tax xoolul vidéo bi ba soo ba xam ne lii ni kii waxu fi lu lu nekk euh, lu ñu violer la loi mm-hmm. balaa muy ñëw ñu tiye ko garde à ko ba indi ko fu ci boom mu soog a wax ne nañ ko bàyyi classé dossier bi sans suite. Mm-hmm. parce que foofu y a problème. maintenant foofu le plus important pour moi. Mm-hmm. mooy kiy toppaate nee na. lii nii jarul toppaate mooy jël naa sac bi sànni naa ko fële dama ñibbi nañ jàll ci leneen ñu ngi lay xaaree feneen boo defaatee leneen ñu xool ndax loolu aussi yoon da koo tere donc maintenant problème bi posé mooy. Mm-hmm. Euh, et sans que même ba Herma Barth di bëri ànduma ci moom aussi am na fu mu laal dafa am solo mooy FMI daa def euh, ne rafetlu nañ exercice de transparence bi exercice de transparence bi mooy da ngeen def conférence de presse ministre bi toog fii kii toog fii ngeen liir ay données ngeen liir données yoo xamante ni yéen yéen yéen a wax ne même ngeen moom ngeen fi fekk loolu mooy exercice de transparence léegi loolu lañu rafetlu comme quoi aussi fan yii di ñëw dinañ liggéey ak yéen pour ñu xool lii nii ensemble fu ñu jëm comme ça li ñuy seen suñu bon doon fa yegg. dana nag pose nga débat euh, Bougane Gueye euh, comme quoi FMI wax na lee donc est-ce que justice daa juum déedéet man. jàpp na yamul ci rafetlu. waaw ah. daf ci teg félicité. félicité il a félicité le le gouvernement du Sénégal. d'avoir fait quoi. lan la ko félicité. exercice de transparence bi ñu sumb. mooy loolu laa wax rek. ah déet non maanaam bul yem ci ne rafetlu nañ rek maanaam booy. tegee ah. félicité am na loo tax. parce que li ngay wax li ma la wax sànq ni FMI ci boppam. Hmm. responsabilité am dafa nekk ci. warul woon a yem ci li nga xam ne moom la Sénégal di wax parce que bu jurisprudence Grèce amul woon. bu boobaa mën nañu wax yow waxaat nga ne Argentine waxaat nga Congo. léegi ñoom li tax li ñu wax xam nga foofu la sens fu li élément Bart doon wax di ko me kii Ousmane Sonko ak gii Marius Sagna ne ku ñuy tàjju sax war nga tiit loolu daf koy dëggal léegi nag bu Sénégal ñëwaatee def nii loolu yamul rek ci wax ne les ancien régime bi fi jóge dañ daan fen ci nii di leen fen yéen mais loolu ci langage diplomatique la yam mais ñoom dañ ko war a déggee ñi li ngeen daan yónnee tamit ñoom ñooñu it est-ce que jub nañ léegi léegi yow euh, ci bugaan bi man aw problème ci boobu parce que man nee naa la effet mi attewul attewaanul tëjul tëjaanul mënul tëj attewul lu dëgg donc justice bu Sénégal moo ne jaaree ko ci procureur bu ànduloon ak li premier ah, moo ne yéen gars yi Cheikh Yérim Seck. Mm-hmm. demal ñibbi Bougane demal ñibbi. Mm-hmm. diffusion de fausses nouvelles déedéet euh, diffamation mm-hmm. absolument pas injure déedéet demal ñibbi. procureur mënul woo. toppee la nàngam ba pare nga ñëw moom moom opportunité pour si yaa ngay wax yaa ngay déglu moom mu wëlbikuwaat waxaat la demal ñibbi muy tekki na li ma la doon toppee toppeetu ma la ko tamit mënul nekk loolu. toppeetu après mu wax leen li kon lan lay toppee. non mu toppeetu ma la ko classé sans suite. nit mën na laa woo réponse yi ngay joxe tax mu ne la waaw wala vie que ni dëkk bi kii yow it damay bëgg nga dem jusqu'au bout de ta xam nga man nee naa la xëy na euh, lan la lan laa la waxoon keroog. li ma la waxoon mooy bi ma liiree procès verbal bu Cheikh Yérim Seck mu musuma ànd ci luñ koy woo laata may gis PV e bi. Mhm. fii lañ fi nekk keroog jour lañ weerante non. ak Bougane parce que dama gëm ne loolu ñu wax dara nekku ci. parce que boo ko jàppee dafay min ni ku wax dara nga weddi ko rek yóbbu ko ci kaso bi loolu nag. amul ci réew Ousmane Sonko moo ko jàpp. non moo ko jàpp j'ai dama ne. man su ma waxee ku dafay min nii ku def dara rek nga jàpp ko dafay nga weddi nga weddi ko nga jàpp ko moo dafa moom exécutif justice lay wax juste mooy jàppaate. mais nit ki bu jàppee na war na laa jàpp. non tey ñu séparation de pouvoir. si est-ce que da ngay xaar Ousmane Sonko intervenir wala Bassirou Diomaye. waxuma loolu bàyyi leen ko. léegi dama loolu bu ñu ko defee def nañ seen loxo ci justice. dama dama ne justice bu Sénégal dafay observer. lii nii nga def plateau fii fii Ndakaar ñu ngi lay gis. waaw waaw waa cybercriminalité. léegi loolu sax loolu sax mënoo ko wax sax yemale ko rek ci justice. waa parce que ñooñu ci waa intérieur la. lépp lu war a jaxase wala lu war a yàq. waaw benn nopp biir réew mi war nañ la cee woo déglu la. léegi dama la bëgg a wax maanaam ñu ngi lay déglu di xam li ngay wax. waaw léegi yow am na loo xamante ni boobu léegi ñu ngi wax. bu dee woowuñu rek kon jàpp nañ ne defuñ fi dara lu yoon waaw léegi bu dee yow am na loo xamante ni li nga jàpp ni yoon terewu ko soo ma wooyee ci loolu aussi da nga may tardel ba pare di di di sonal nit yi jaru ko mën naa jàpp mën nañ koo dégluloo mu xool ne kii lii mu wax baaxut ñu woo la léegi li ma la bëgg a ay gisaat wala ñu xam ñu xam ne kii kat li mu def li ma la bëgg jarut woo ñu delloo la waaw li ma la bëgg man bu ñu woowee Cheikh Yérim Seck man pour man leneen lañ koy wooyee bu ñu woo Bougane pour man leneen lañ koy woowee man Bougane bi sax Bougane Bougane bi sax man buggaan bi par exemple man lenn daal newoon naa bu dee loolu la mën nañ ko téye mooy injure. Hmm. injure la fen du saaga. waaw ma ne la ma ne la fen saaga la ci ci droit. waaw ma ne la man ci bu dee fen làkk wolof la bu ñuy wax ci droit tamit dañuy indiwaat. dañuy muy teg xam nga nekk ñoon tribunal olof. non non mais baat bi ci wolof nga ko wax. suñu lay attee dañuy woo ku dégg. lu tax boo boo déggee pël. te tribunal amul ko fa dégg ñu woo nit ne kan moo dégg làkk bi ne la waatal. wàcc wàcc ne li mu wax loolu ngay wax nga daal di waat. lu tax li nga wax bokkul. non non benn la non non léegi ba ma expliqué la. bu doon dañuy dem tribunal wolof. nga xamante ni dañuy day non il ne s'agit même pas tribunal wolof. lu tax bu nit ki bu déggee pël. mais li ma ko wala bu dégg manjaak non xaaral xaaral cuun bul bu la gis nga yow. mais juge bi wax wax na ne wax ma la ba léegi ñu koy waxee ci wolof man injure laa yow yaa koy teg dama ne la injure ma ne wax ma la saaga binduñ saaga dañ ne injure publique làkk léegi yow yaa koy traduire ay saaga saaga yow yaa nekk dans l'interprétation dans la définition léegi non non définition dama ne non wax la sens bi bi bi injure am ci ci ci ci français waaw su ñëwee ci wolof mën na ko bañ a am waaw léegi loolu loolu débat bi mais nekkuñ ci wolof doo nekk ci cours leçon de droit ma indil la ne la su fekkee ne da nekk manjaak wala nga nekk beneen kii ñëw ci tribunal ñu lay kii. juge bi dafay wax kan moo dégg làkku kii kon lu tax mu muy tenir compte ci loolu. kon mënoon na rek moom bu ñu waxee mu taxaw ci compréhension daal taxaw wax mais man dama taxaw fii ne la waxuma ba buñ ko bindee ci droit. wolof jàppewul fen saaga. te pourtant ci wolof la wolof. non non du ke non mais bu ñuy àtte ci droit dañuy sukkandiku ci làkk bi. nga wax lu tax ñuy woo nit naan ko naan naan ko kaay tekki. wor amay trahison wor waaw ci ci droit wor du trahison wor wor du loolu trahison du wor. trahison ci droit la wala. abus de confiance. mooy tas yaakaar. <laughs> nga naan ma abus de confiance non non non. loolu tas yaakaar abus de confiance mooy tas yaakaar. yéegali s'il te plaît. saa baay làkk duñ ko duñ ko firi. saa dama leer dama leer duñ ko tekki dañ koy firi. sama ne sama ne saa. oh may injure injure xamul ñu koy waxee ci olof waaye mooy tey nga wax nit ki da ngay fen sax injure la. Hmm. nga wax nit ki nga ne ko nga wax ak moom nga utiliser dee mais mais wax ji man wax ji la moo bi. c'est pas vrai. doo ko wax nit c'est des mensonges. d'accord kon yow tiimaa loolu loolu saaga la léegi kii. léegi kon ma ne tiimaa ci français nit ki fenn nga ne ko tiimaa saaga la. léegi baa ma expliquer la léegi mu simple léegi nga xool lépp loo gis bu mu xa bu melee noonu rek ci la bokk injure mooy mhm. tout propos irrespectueux outrageux léegi léegi xoolal lépp lu am irrespect ak outrage ci la bokk. leer d' wax nit ki est ce que da ngay fen est ce que woo. parce que waaw kon ci la bokk moment bu nit ki defee fen yi nag est ce que kooku na respect. non li tax kër procès Mimi Touré ak ak ak ak kii ak euh, Mansour Faye demoon nga. demoon de. xam nga lu ñuy laaj bi ñu laajee euh, Mimi Touré bi muy wax kar carnage financier wala nangam dañ ne ko laaj est li nga wax da ko wax parce que da ngaa bañ famille bi wala nangam nangam mu ne. amul famille bu ma bañ wala pour saaga nit jubluwuma ci pour li ma jublu mooy dafa am lu bon ci askan wi ay nit teg leen ko dóor seen xaalis loolu mooy carnage financier foofu laay tegaat avocat kële li ñu bëgg a def mooy pour dé pour pour fexe ba mii mi wane ne dafa saaga comme tey bu doon wax ji mooy li mu ci jublu daf cey jubloo saaga mais jubluwu ci pour dëgg feeñ léegi nag ki wax nit ne ko da ngay fen bu fekkee ne daf koo wax parce que mu def réew mi loolu mooy feey mu taxaw bu ko manee bu ko ay avocat mënee formuler ba mu bañ déggee ko noonu day génn ci saaga li ngay wax loolu la respect koo respecté doo ne ko da ngay fen waaw léegi léegi loolu laa lay expliqué dama wax ne sànq yaa posé Mimi Touré juge boobu ku mën di posé ku mën di posé question lenn lay jublu xoolul ndax da fen de lu mu ci jublu mooy yow mi wax carnage financier est-ce que li ñu ci jublu bon foi nga ci ànd ba yow daf lu ñu ci jublu loolu bokkul ak. man nit nit mën naa am bonne foi pare saaga. mais nit nit ki wax nit na dangay ngay fen. waaw am loolu affirmation la loolu donc c'est un fait. non non non ay mais bu dee nit ki daf ko def kooku taxaw ne ko lii nga wax ay fen la. jëmmi meral présenté ko comme tel ni ay fen la la ci jublu am na ku lay wax ne da nga fen pour jublu ci saaga la pour du loolu naqar moo tax foofu. dafa doon loo xam ne. comme saawalo bul wax loolu nit ki lim ci jublu ak yooyu yow. jàpp nga ne fen non boo ah, yow jàpp nga ne fen la bi mu turee bi mu demee fii. jàpp nga ne jàpp nga ne le mot le mot carnage dañ ko jàppee manque respect. léegi yow jàpp nga ne fen. du saaga kon Bougane bu ñu ko doon topp waruñu ko toppee injure. non bu ñu demee war nañ ko mën a toppee diffusion de fausse nouvelle wala diffamation. ci yow ci ni nga jàppee fen yow dama ne ah. fen. lu ñu jàppee saaga saaga mën nga ko lu nga ko jàppee fen la ñu nekk. parce que Bougane nañ ko woo ci tribunal woowuñ ko ci. kuréel boo xamante ni ana olof saa wolof. lang wolof ñu atte ko bu doon dañuy dem ci kuréel sa kuréel ba nu mu tudd. ma mi réew xaw ma réew. ma réew ma réew mi. non léegi du ngeen ci mës ak Mansour Faye la moo. yow yaa bëgg a tekki loo. non non non injure lan lay tekki. non léegi nu ñu koy tekkee ci séeréer ak joolaa loolu man xaw ma ko. mais xam naa lu mu tekki daal si fu ñu doon wooyee bugaan mooy wax joo xamante ni bu ñàkk teggin ah déet xaw ma procureur jàpp na ne lii jar jaruñu koy topp ah, y a pas matière nee nga lépp lu ñu yëkkati lu irrespect irrespecté effectivement loi bi lu mu wax loolu ah man xaw ma laaj ko procureur ah, li ma wax a tax ñu bàyyi ko non yemul ni ma ko gisee noonu tax ñu bàyyi ko. je suis désolé kay ah di nga désolé kay. ni ñu koy toppee yemul ci. c'est waaw laa ci doon boobu kon kañ leneen mën na ko. c'est bon léegi léegi léegi nee na da ngay fen du saaga. je te jure je bu ñu appliqué woon lu yoon def. sénégalais yi mën nga compter sénégalais yu dul dem yu dul bàyyi wax ma. waaw dama lay wax rek li ma wax la benn affaire bu dee dañoo topp yoon lu mu wax boo doon compté Sénégalais yi demul kaso la mosul dem yoon ñuy gën a tuuti ñu dem kaso wala ñu dem wuy ji yoon te chaque jour bu heure boo xëyee yaa koy def te xamuloo ko mm-hmm. dama ne injure mooy mu nekk public wala privé mooy c'est tout propos irrespectueux et outrageux léegi nag yow yaa xam irrespectueux lan lay tekki est-ce que da ngay fen respect la wala déet mm-hmm. kooku yow yaay xool ah. est-ce que sàcc nga respect la déet yow yaay xool est ce que nga wax nit ki léegi léegi yow léegi xam nga Sénégal dañuy dañuy jaawale par exemple nit ki kam boo ko waxee embe nga sa nga yeggali mais loolu du saaga loolu du du du saaga comme ni nga ko jàppee nga jàppe ne comme mooy koo xamante ni ku ku ku juddoo ci xaw ma lan imbécile c'est très simple mooy koo xamante ni da nga faible d'esprit c'est ça sa xel neexul loolu mooy imbécile mais kooku wax mu jàpp léegi waaw léegi loolu yow yaa ko interpréter noonu ah léegi léegi quand buñ la waxee da ngay olof la nga ne nii saa loolu dafa débat sëriñ bi. mais Mansour Faye dañ koo waxal loolu carnage bi ay avocat dem le mot carnage boobu la ñuy lijjanti ndax Mimi Touré daf ko wax jublu ci saaga ko wala da ko wax pour la bon cause maanaam de bonne fois parce que ni ñu yàqe alalu Sénégal Bougane Gueye tey bu fekkoon ne la mot dangay fen boobu mu utiliser dafa fekk moom mu nekk ci dëgg maanaam tey. cuun cuun fen pour nëbb benn affaire ma ne ko lii nga def ay fen la loolu mënul taxaw taxawaayu saaga bokkul nag xamaluma ko dara di ko sosal ba pare teg ci naan la da ngay fen fekk fenoo wala may taxaw naan la ab fenkat nga fekk xamaluma la dara laa bu boobaa ay saaga lay doon ab sàcc nga sax koo ko wax c'est irrespectueux da ngaa détourné koo ko wax c'est irrespectueux mais bu nit détourné noo koy woowee bu nit sàccee noo koy wooye bu nit violé. même su ko waxee da ngaa ñaaw xam nga ma toppee nag mën nga ma fa ah bien sûr. <laughs> loolu mooy bépp loo yëkkati irrespecté xam nga yow. Eh, dafa fuñ non léegi da ngaa léegi infraction la léegi nga ne. non saa rek waaye. non bien sûr. non léegi da ngaa da ngaa ñaaw. non mais mais laal na la sa image moo tax dama laa nangul ne li nga ne. c'est de la diffamation ça damaa ànd ak yow. ci li nga ne bépp parole. waaw irrespectueux bu nit ki yëkkati. loolu injure la injure la. voilà fen man naa doon loolu. waaw léegi non non fen da cee bokk dangay fen nga wax ko nit bokk na ci waa ngaa ñaaw bokk na ci non dama laa nangu loolu suñu problème fi mu nekkee mooy su fekkee ne kiy wax di niw ne ko da ngay fen loolu daf cee jublu parce que fee bi la def laa loolu du saaga parce que da ngaa wane li nit ki def est-ce que comprendre nga li may wax bu baax. waaw d'accord léegi Fatou jàll ci la. voilà après naa la <laughs> naa la jox lexique juridique. lexique juridique yow rek laa yem. non xuma loolu danaa la ko envoyé. dafay lii chaque jour. na ñëw nga koy lire chaque jour. boo ñëwee dafa lay permettre nga xam. ma ne man man ci loolu ci laa dëkk. boo ma non daa la xam nga benn benn kaye. man bokkuma ak élément. benn laa ah, lay non wóolu naa ko mais dama la bokkuma ak élément bar. ah élément bi sama document man. d'accord léegi dañuy ñëw ci ah, leneen. mu élément bar euh, documenté. taay man maay man maay man maay seen doomu ndey. kii li fi wax fii. kii taay taay man eh, jox jox ko nag jox ko cent loolu rek déjà loolu rek déjà. yaa ne ku génne vidéo bu génne ko jox ko cent